léegi dañoo signé woon ak convention de partenariat bu nga xam ne convention bi ñun commerçant yi ñoo ko signe après ak maire waaw ok ñun commerçant yi ñoo ko signé ak maire ak préfet Dakar ñu signé convention bi ñu commencé première bloc bi muy 91 cantines boobu ñu liggéey ko niñ ko waxee woon ci convention bi ak cahier de charge bi ba ñu demee ci deuxième bloc bi mooy noir blanc bi bu ngeen demee di ngeen gis. bañ commencé deuxième bloc bi promoteur bi viole article 2 ak 3 bu bu cahier de charge bi ba mu ko defee ñu def euh, ñu ñu def euh, ñu def constat procès verbal de constat bon ah d' accord ñu def benn procès verbal de constat ñu somme ko na arrêté mu bañ ñu traduire ko en justice bañ ko traduire en justice nag ah justice daaneel ko justice sax daf waxoon dañu nañ def benn benn kii expertise judiciaire def nañ expertise bi bañ ko daanelee mu ñëw toj li mu defoon defaat ko niñ ko waxee woon mu defar bloc deuxième bi niñ ko waxee woon ba pare mu mu war a jël troisième bloc bi li ñu daane ni ngeen di gis li ñu gaane ni trois bloc lañu fa daane ba mu defee troisième bloc ba mu di waree jël troisième bloc bi ci la ñu ci moom ak maire promoteur bi en complicité avec maire ñu ne ñoom business daal moo leen ñor defaral nit ñi ñu fay ñu dem loolu daal intéressé wu leen ñu ne ñoom business moo leen ñor il faut ñu def deuxième étage jaay def seeni i loolu daal mooy wax ji yëpp. fi mu toll nii ñaata cantine lañ fi daaneel. 280 280 cantine lañ ci lañ ci daaneel. léegi nag ci loolu bon a ah, maire moo ko def ak promoteur bi en complicité avec certaines autorités administratives bien sûr parce que police moom déploiement police bi ñu gisoon jour boobu mënut ñëw sans sans administration. ndax yéen avant ñuy def lii jotoon wax na lii ko def après. c'est-à-dire que sommation maire moom mu su doon léegi sama bureau laa nekk mun naa la indil un million deux cent sommation yu mu indi fi chaque jour day indi sommation moom bu yeewoo rek day bind sommation ba pare yónnee ko doog a doog a chaque jour la. non lu ñu fas yéene yéene yéene moom lu li njëkk li mooy président de la république la ñuy wax ne interpellé ci injustice bi ñuy def en plein euh, Covid 19 ñu ngi ci Covid 19 ñoom ñu def jéye bii ñu def. Ah, mais c'est c'est grave dafa mel ni ñoom gëmuñu sax li président di wax ci Covid 19 bu ñu ko gëmoon du ñu def lii waaw li ñuy interpellé moo di euh, président la ñuy interpellé mu ñu mu def intervention bu gaaw ci lii. parce que cent 280 cantines plus de vingt mille familles yoo xam ne Pape Seck ak promoteur bi ak certaines autorités administratives mettre neen en détresse dans une seule journée. te li ñu gën a jaaxal nag mooy jour boobu dañoo yaakaaroon ne sax promoteur bi mooy préfet parce que moom mooy dem poste police moom mooy déployer policiers yi moom mooy moo andi engins yuy toj dañoo yaakaaroon ne sax euh, promoteur bi mooy préfet bi boobu parce que taxawaay préfet sax la taxaw loolu moo ñu jaaxal mais bien sûr bien sûr xam nga yóbbu woon nañ leen justice daaneel leen dañ leen di yóbbuwaat justice rek loolu kam moom loolu amul sax werante non c'est-à-dire que waaw c'est-à-dire que xam nga soo gisee ne defuñ yëngaluñu rek pandémie bi la hmm. waaw respecté président de la république ak euh, ak li mu wax ci pandémie mais su dul woon loolu ci site bi ñun ñëpp fa la ñuy toogi mais comme pandémie dafa am bon dañuy wóolu suñu justice yóbbu ko justice ci marché HLM dama ci am cantine boo xam ne dama ko jëndal sama soxna waaw dañu am benn problème avec la mairie moo di dafa xëy un bon jour encercler marché bi en plein pandémie en plein pandémie je vous dis avec la complicité des policiers ndax ay policiers la mobiliser en plein pandémie ñi nga xam ne dañoo waroon dañ leen waroon mobiliser pour dem xeexu mbas mi parce que dafa am loo xam ne dafa am urgence loo gis dafa am urgence même bu fekkee sax dafa waroon toj y a une urgence qui s'est bañ dem ba déclarer catastrophe euh, sanitaire lu mel ne Ndakaaru kon leneen waru fee am di toj ay marché mu ñëw xëy un bon jour encercler marché bi ne damay toj te fekk avant avant damay toj bi moom joxe na ay autorisation de construire ñoo xam ne ñii verbal la ñii écrit la en sachant que marché bi dañ koy toj te marché bi toj bi commerçant boo koy defaral mu ne mën naa defar commerçant gën a bëgg lu baax amul benn commerçant boo xam ne bëggul lu baax commerçant yi dañuy investir ci seen place yi dañuy fay lu nekk dañ façon façon façon euh, façon lu nekk dañ leen koy teg ñu koy tegoo di at di di apporter des milliards yoo xam ne ci biir nguur gi la lépp ci commerçant yi la mu ñëw indi ay agent Senelec dagg dagg courant yi def ci acte de vandalisme yu ko neex yu ko neex raser ko te benn te y a problème kii nu lii benn affaire rek la un problème d'intérêt la problème intérêt bi moo di ñëw na fekk nit ñi mu ne seen place bi dama ko bëgg a yéegal dama bëgg a def étage ci kaw commerçant yi bañ loolu mu profitoo ci ne il faut kon dinaa toj cantine yi te en sachant que day toj cantine yi am na ñoo xam ne jox na leen autorisation écrite autorisation ñii autorisation verbale ñu tabax ay cantines investissent des millions mu ne déedéet la ngeen def doyuma la ma doy mooy ma jëlal sama bopp entrepreneur ñu dem banque lebi xaalis ñëw defaral leen wëlbatiku jaayaat lañ ko en sachant que ñooñu investir ay millions sans état d'âme mu ñëw ranger yëpp sans état d'âme mu ñëw ranger yëpp. nit commerçant yi mënoon nañ riposter mais man lañ déggal man maa leen oo ne moom bu amul lu muy bañ yéen am leen loo bañ parce que bu fekkee adduna bi yëpp dañuy taxaw di xeex feebar bi moom ci biir feebar bi mu ne damay toj kon yéen toog leen après ñu jaar ci voie juridique interpeller l'État ci injustice yi nga xam ne yàgg naa am ci mairie yi ñu koy bàyyi ba nga xam ne mun naa jur fitna ndax nit fa muy suturloo boo ñëwee bu ko xañ mun na laa jaay bakkanam ndax gis nañ ko fi ñi nga xam ne sax ils sont dans l'illégalité boo leen di les mécaniciens yi nga xam ne ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci ay yoon buñ leen di dédommager sax da nga leen di jël ndàmpaay neneen leen dinaa leen teg fet waaye jël nit toroxal ko mu investir ay millions nga toj ko wëlbati ko benn dédommager woo ko joxoo ko des des sites de joxoo ko lenn lu dul am naa doole la ma neex lay def la ma neex nag nguuru yàlla rek du jeex mais nag maa tey bi dafa war a arrêté ci Sénégal parce que autorités dañuy nekk au courant ba pare bu dara amee ñu ne yëguñu woon c'est pas possible ñuy ñuy mobiliser lu mel ne blindé de la police te ministre de l'intérieur n'est pas au courant c'est pas possible ñuy toj marché HLM le préfet n'était pas n'était pas présent le sous-préfet n'était pas présent le gouverneur amul kenn ko benn autorité administrative boo xam ne à part même le maire ça n'était pas présent ay nervi rek la envoyé ay nervi la envoyé wa police mobiliser police bi nga xam ne instant bi dañoo waroon mobiliser wu dem di xeex mbas mi di seet ñiy takk masque wala nangam ñu ne déedéet duñ def loolu dañuy dem ci ñi nga xam ne ñu ngi kii seen njaboot di suturlaw foofu ñu daaneel leen créé waat plus de vingt mille vingt mille vingt mille familles yoo xam ne ils sont dans dans le désarroi total parce que nit ki fa muy suturlawoo boo ñëwee yàqal ko ko rey nga ko musu leen dégg marché aslem ñuy laal ci benn cantine te déggu leen yëngatu tey guleet mu doog a am parce que on respecte la population parce que dañuy xeex mbas mi ci biir suñ xeex mbas mi moo tax déggu leen kenn déggu leen yuuxu yéen journalistes yi amul kenn ku ci yëg ne marché HLM dañ ko doon toj après ngeen ko yëg loolu yëpp man maa ko vérifié man maa ne bu leen kenn bu leen kenn dégg ndax nit bu fekkee da ngay xeex da ngay xeex dara dañ leen dimbali ci loolu ci loolu lañ nekkoon ba tey jii nii waaye nag fi mu nekk nii dañuy interpeller le chef de l'État injustice bii muy def injustice bii Pape Seck di def que Euh, si si si s'il le faut qu'il envoie une délégation spéciale wala ñu indi benn kii audit ñu audité maanaam mais mairie bee ngi nii ça fait plus de quatre ans mënul pare bu ko lijjantee dina xam lu tax en location lay nekk tout le temps yow mairie bi ngay tabax mu noo ko tabax yow en personne nga ne damay tabax la commerçant ban logique la am ça fait plus de quatre ans mafia yi xew ci marché yi il faut état bi lijjanti ko. parce que tout le temps dañuy bàyyi ba nit ñi dee ñu commencé wax wala ba nit ñi nag il faut ñuy bàyyi médecin avant état day prévenir nit ki da ngay prévenir yow li nga xam ne bu ko defee tey mun na jur jëya en plein pandémie mais arrêté ko en plein pandémie au lieu yow ngay arrêté ngeen ne non non naa nañ def ba pare bu ñu defee mën a yëgu ma yow ku mënul tabax sa mairie nan ngay mën a tabaxee marché HLM amul logique.